réaction yi nga xamanteni ni jot na fee ñu fekk fi tamit aussi monsieur le maire Baydi euh, Baydi Ba monsieur le maire monsieur le maire euh, tey situation bi fi mu tollu ci vote bi parce que ci suba ba légui 9h ba légui ñoo ngi fi mais jusqu'à présent ben, vote mënut a déroulé lan mo ci sa réaction. bon di wane rek euh, ñak rafetlu liggéey bi nu mu euh vote bi si vote amna parce que premier argent, bi vote nañ ko ba paré ba nga xamné benno moko gagné les gens qui ont gagné ils ont publier résultat yi Bon, lañ ne du fi donc euh, warul woon gënul bon parce que le maire de la ville euh, Ahmed Aïdara la kenn xëccoowu ko donc li a gagné, xëccoo adjoint yi nous sommes des élus ay élus lañu élection lañ dem ñu gagné point avons gagné nañu fële ñëw nañ fii ñu gagné leen dañuy accepté loolu la on est en démocratie amul leneen ñun non nous situation nous mu mën demee L'essentiel, problème que essentiel mooy ay conseil Nous ñu C'est lui le président du conseil C'est lui le maire C'est moi organisé donc c'est à lui de gérer Nous avons lui gérer Si vous arrêtez, nous l'ignorons.

voté ak ñoom ñoom bu ñu xool dañoo war a xool ñoom seen i nit fan la ñu fan la ñu jaar ba seen i nit ñooñu bàyyi leen voté luñ leen ñëw di leen voté mais ñun fii amul leen amul kenn ku ñu fi war a condamné bu ñuy condamné waa yeew yi la ñu war a condamné ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo perte ñoom lu tax voté lu ñu waa yeew yi ñoom ñoom ñoo voté wul donc nañu yeew yi affaire yi pare ñu dem man li ma la wax mooy nañu yeew yi affaire yi pare ñu dem le maire c'est Ahmed Aïdara loolu amatul leneen luñ ciy wax mais coow li tamit. am na yoo am na jaru ko ay saagante ndey ay xasante yaay jaru ko ne est en démocratie na ku nekk défendre idéem ku nekk na wax ñu avancé loolu man loolu laa ci amoon li ma wax mais je regrette lii moom rafetul woon ci ci géejawaay. waaw asalaamaaleykum maa ngi tudd Adjaratou Rose Niang dëkk Golf Sud ak conseillère maire euh, ville de Guédiawaye. situation bi fi mu toll nii fi mu toll bi daal fi mu toll fii

ñu takkal ko euh, banderole am ñu takkal ko raayaam mu takk moom ñu rappel ñëpp conseil yëpp 86 conseils ñun ñu am 44 40 48 yëpp con voté yu ñoom 40 lañu ñu am Cheikh Sarr gagné ko mu ne ñu bañ nag ñoom deneen daal vraiment loolu du jàll. kon jërëjëf soxna si ñëw déglu yeneen ree